bonjour tout le monde chers internautes yéen ñi seetaan Mabody TV maa ngi leen ce nuyu ku ci nekk sa tur ak man la Gaston Hervé Essa ñu gën ma xam euh, ci série Podé Marichou Mario Bandi acteur de cinéma en même temps animateur présentateur maa ngi Jonas. est-ce que Mario a eu am beneen expérience belle série bu bokkut ak Podé Marichou. bon sama série bi ma joué bon j'ai eu la chance C'est hein. sama série bo xamné ci la ñëk participer moy tundu wundu waaw c'était en 2014 Ma ngi joué won rôle caméraman bi durant le making of making of saison 2 bi grâce à un grand qu'on appelle Serigne Dramé sama grand la moom mo ñëwon suñu kër ma dégg ko muy wax téléphone quoi ma ko je n'ai pas encore trouvé les deux profils ma ne ko lan ngay wax nii mu en fait dañu am making of bi ñuy waaj a tourner suba pour suñu benn série mu wax ma mu ne ko non loolu mun naa ko eh xam nga lu mu la bëgg a xamal bul ma fonton mu mais mën <clears throat> y avait une cousine boo xam ne moo à côté quoi moom moo interprété euh, rôle journaliste bi léegi man j'étais le caméraman ci la donc demain 9h à la biscuiterie de Médina. en termes d'expérience, est ce que vous avez un apport pour le Marichou andil par rapport à l'apport bu le andil. bon parce que boo la série boobu li ma ci le interpréter rôle caméraman ensuite je vais rejoindre l'équipe bi euh, épisode 19 saison 2 parce que ki bind film en même temps acteur principal Moussa Diallo. Moi, moi, intégré ci groupe bi ba jox ma rôle policier maa ngi joué un rôle policier bi ak euh, Charles Faye te mu euh, journaliste à la télévision Futur Média mi ngi ci tuddoon monsieur Samaké ci équipe boobu la bokkoon mais bi ma jógee foofu <clears throat> après ci laa daanu si Pod et Marichou bon Pod et Marichou naka laa fi daanu see c'est grâce à Sayer. Sayer, ñi nga xamante ci benn casting bu amoon parcelle à la mairie des Parcelles Assainies bobu tamit benen série bo xamné dafa narone am la mais amuloon aboutissement ñu xamanté fofu deux mois trois mois après mu ne ma mi ngi liggéey ak ben maison de production bu ñuy woyé Marodi TV mu ne ma dañuy paré ben série de treize épisodes bu tudd champion de Bonaba manoko ne ah loolu lu baax la mu mais bëggoon naa nga ñëw def casting nga participer ci parce que day wax ci walum sensibilisation

Je ne grand man nga doon waxal quoi mu boy yaa doon prononcé non di arab je eh, suis gis nga de man la après ci laa toog nag euh, série treize épisodes là. mais actuellement xam nga dañ nekk di recherche ay profil quoi ma ne ok ci la sëgg mu sigi quoi mu xool ni fiche bi mu xool xoolaat mu mais grand tu es de la famille du cinéma quoi mu ne ko oh, nga wax loolu non après dinañ la woowaat quoi dafa am benn série bu ñuy paré bu tuddu Pod et Marichou parce que actuellement ñi ngi ci quatrième épisode ñu remarquer aussi né Mario dafa engagé wu ci Pod et Marichou day ñëw teel a ñëw tournage dafa mun rôle ñu ko wax mu def ko mais la moy expliquer sa engagement ci série Pod et Marichou bon bi may njëkk ñëw fi bi ma waxtaanee ak moom woon ci lolu ci la ma xamal ni projet bo xamné dañ ko paré quoi dañ ko yàgg pare et que c'est du sérieux mais ni mu waxee ak man ci bureau bi ci laa xam ni kii nii li muy wax nii xama il tenait ça à cœur quoi ci laa ko ne amul benn problème ma ne ko fu mu nekk nii xam nga lan lay xaar nga woo ma nga ne ma tey ngay tourné jour boobu nag laa gëj Marodi ba jour bi may woo pour ma ñëw def euh, apparition épisode 8 mooy bi ñuy ñëw dañu braqué 13 millions yi fekk Kiné moo tegoon plan ak monsieur Ndour Joe ak Momo fekk si leen ci néeg bi ci laa indi saagu 13 millions foofu laa defee sama apparition quoi dans la saison 1 nga mun sorol car machallah ñu bari nan yow sax yow est-ce que nekkoo won ben bandi wala ben délinquant motax nga mun rôle bi bu baax. waaw euh, rôle lu bandi bi ñu bari ay ree la leen def quoi parce que Hervé melul noonu parce que tout le temps je suis souriant xam nga foo ma fekk maa ngi toog di waxtaan di foo di kaf di mais comme je ma la wax sànq rek li ma jot a jàng euh, ci ñoom Wan Moussa Diallo ak euh, Serigne Dramé moo taxit rôle bu ñu ma jox dama koy interpréter. mais nit ñi nan nañuy apprécier ce rôle ci mbedd bi sa famille wala sa copine sax. waaw depuis saison 1, bien hein, saison 1, bi parce que épisode 24 euh, bi bi may génnee jassé bi di ko teg ñoom Momo épisode bi dafa daw deux jours après ma taxaw Carrefour pharmacie golf quoi di xaar auto mo am ñaari ibad yu jéggi quoi bu ñu doxee ba jib ma sigi xol ma fekk temps ma ngi yar sama face yi quoi ma dégg ben ibad bi nan ko mais c'est lui mu ne ko non non c'est pas lui ñu dem ba xol ma ma xol leen rek ñu jadd xam nga amoon yeneen ñaari góor yu taxawun na le xam nga sama wet lañ taxawoon jékki-jékki pousse quoi mu demee gars yi nu mu demee nii gars la lañ may dawee nii xam nga même bu ma duggee ci bus bi tamit xam nga gars yi di ma moytu quoi mu demee attends nu mu demee nii boo xoolee bi mu demee bay épisode quarante ci la watu quoi xam nga mais rôlu bandi bi fi mu nekk nii ñu bëri dañu foog ni man band bandi la réellement quoi parce que même ci site internet yi da ngay jékki-jékki di recevoir ay message ah yoo xam ne ay message yoo xam ne moon mosuma gis naan ma yow yaa bon yow yaa soxor yow yàlla nga dee ma xool ma xam ni ñi ils sont carrément dans le film quoi ñoom dañ koy dund même bu film bi jeexee ñoom tamit dañ koy dund mais sama cousine bi xam nga moom jigéen la quoi moom famille Diop moo ko neex ñoom pot ay momo affaire yooyu noonu mais instant bi ñu sàccee xaalisu pot bi cent millions yi mere na mu deux jours quoi <laughs> ma ne ko mais yow lii film la rek ma ne ko yow instant yaa ngi carrément ci biir film bi quoi ma ne bu film bi jeexee film bi jeex parce que Sénégal boo xoolee euh, gars yi bu ñuy seetaan du ak xel quoi gars yi ak xol et que film bu jeexee rek dafa war a quoi mais ñoom du jeex ci ñoom en fait dañ la koy di la ko di la ba nga sénégalais non lay film. à travers ton rôle ban message ngay lancé délinquant agresseur, agresseurs yi lay Wow, waaw lolu message la message bo xamné euh ci biir film bi ah, parce que Podé Marichou dafa nek série euh, dénoncer. yenn fee yi nga xam ne moo am ci société bi comme doolu Mario Mario reykatu nit la Mario day torturé léegi mu def euh, maanaam deux ans ci biir série bi ñaari at Mario mi ngi rey mi ngi am xaalis mi ngi mbugal doomu aadama xam nga mi ngi sonal ñëpp daal lu mu bëgg da koy am loolu day wone ni bandi loo bandi bandi bandi sa bés dina mus bandi bandi bandi di nga et que Mario daanu na mi prison Lopez tamit daanu na mi prison loolu ben leçon boo xam la bandi comme may seetaan képp kuy agresseur comme may seetaan képp ku nekk ci yoon bu Mario fi commencé ba di nga bàyyi li nga doon def c'est juste un message. mais lan moo war a pousser nit ba mu dugg ci banditisme. bon loolu boo xoolee pauvreté moo koy gën a def parce que am na ñoo xam ne boo xoolee tey jii ñi ngi def lu bon mais du seen coobare ñi ngi agressé ñi ngi rey nit ñi ngi jaay drogue parce que sen kër buñu qui duñu wala bu fa také repas par jour majeure partie bi pauvreté indi amna ci ño xamné ne dañ ci du manké dara daf di neex ñuy sonal doomu Lopez. Lopez nekk dama ko Lopez prison prison. Lopez suñ ma dóoree moo tax ñu dóor ma Lopez saayu amee problème maa ko ciy génnee Lopez musuma toog benn jour boo xam ne sama téléphone sonné ci biir série bi mu ne ma allo Mario mbaa yaa ngi ci jàmm mais saayu yu Lopez su ma gisee Lopez rek nga xam ne musiba am na maanaam mooy Mario kaay rey wala ka kaay torturer nit wala kaay yóbbu Mariam Diop Inde genre yooyu moom daal loolu lay doyee Mario. léegi ñu tourné page Pod et Marichou ñu waxtaan ci RB tey jii boo ñu doon wax loo gën a regretter ci sa dund lan lay doon. lu ma gën a regretter sama àdduna mun naa ne amul parce que sama turandoo moo ma yar moom mi ngi tudd rv Edouard Coly joolaa la dafa génn àddina quoi moom ak sama papa ñoo bokkoon. Euh, ben lal buñ doon tëdd université mo nekké xalé nak moom mu doon wax moom mu doon wax ni rien ne doit être une surprise pour toi dans la vie car bonheur et malheur s'accompagnent en même temps mais bi ma waxee loolu nag mu ma koy ba ni may màggee may màggaleeg loolu jour ñu and décès quoi ma gis gaay di joy. ben décès ben frère am bu gaañoon mu ne yow lan moo tax ngay taxaw nii croiser les bras nii ma ah yow yaa ma ne rien ne doit être une surprise pour l'humain dans la vie mu ne ma mais da ngay xaw a triste sa kanam sax ma ne ko non du ma def yooyu mu xaw a reetaan quoi mais loolu nag laa jàpp ba fu mu nekk nii même su ma amee metti du ko wone parce que foo ma fekk maa ngi toog calme xam relax quoi même su may ñëw fii Marodi TV tamit boo xoolee ren mooy def trois ans maa ngi ñëw fii kenn mosuma gis ma mer. yaakaar naa ne aussi passe nga des moments de bonheur tey jii boo ñu doon wax bu ci gën a marqué. bi ma ci gën a marqué bi ma ci gën a marqué mooy bi may njëkk a fayeeku douze mille francs daa <laughs> yi dama doon jàng bu vacance jotee ma ne damay dem liggéey quoi ma dem di journalier Canal Horizon temps yooyu chaque samedi da ngay am douze mille cinq cent quoi.

12500 500 aide. est ce que deful ak man ay un mois yoy dama ko téye de <laughs> douze mille cinq cent yi ko nii affaire bi marqué ma mais bon moy lolu quoi. ñu bëggoon xam aussi ses ambition est ce que tu as ko recadrer uniquement ci cinéma. bon ci cinéma bi ak musique bi parce que wo xolé tous les week-ends a am soirée mo ou animé wala mariage jour de semaine. damay organiser wu ak euh, équipe technique bi ñu may defal samay tournage les jours de semaine mais les week damay dem xar samay mat door samay soirée animer mariage des fois nga am ñaar ba ñetti mariage xam nga des fois nga dem louer sono woo keneen ku la jàppale. lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy yàlla na jàmm yàgg Sénégal. Euh, di nuyu toute l'équipe de Marodi TV. Serigne Massa Mondou, le directeur sama copain tous les dimanches dañuy wax au téléphone Adja ak euh, Nabou mi nga xam ne filmé sonal naa trop sama gain la son partenaire la di nuyu aussi sama jumelle Kiné bu baax sama xarit sama jumelle sama lépp sama confidente avec sama petite sœur Eva maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax nous télécharger l'application Marodi TV pour regarder les meilleures vidéos. Devant cette caméra, j'étais Gaston Hervé Essa, dit Mario dans la série Podé Marichou.